mbooloo mi monsieur le ministre nee na asalaamualeykum wa rahmatullah bu ñu sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi. ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi. ñu ngi sant suñu buntu ci lislaam xaadim rasulullahi. ñu ngi sant suñu buntu ci lislaam xaadim rasulullahi. di ñaanal sëriñ Muntaxa Bachir. di ñaanal ki toog ab jataayam muy sëriñ Muntaxa Bachir. yàlla yàggal ko fi lool. yàlla yàggal ko fi lool te amin ba mu àggale mboolem ay naalam ci yoon wi. sëriñ bi sëriñ Bass. Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke ibnu borom Daaru Muxti. noo ngi lay andil nuyoo sa taalibe sa doom le président tous les sénégalais monsieur Macky Sall. bi ñu yebal ci bés bu màgg bi. bi ñu yebal ci bés bu màgg bi. ñu ànd ci ak délégation bi. ñu ànd ci ak délégation bi. bés bi woote woo ko. xam na ne bés bi kat Mbacke woote woo ko. ndigalu sëriñ bi sëriñ Muntaxa ndigal li ci sëriñ Muntaxa joxe woon topp nga ko ndax li fi xew muy pandémie bi ndax lii nga xam ne moo lëmbi jamono muy pandémie bi waaye nag xam na ne waaye nag président xam na ne bés bi bés bii bés bu màgg la bés bu màgg la bésul borom daaru la bésul borom daaru moxti la muy bes bu màgg ci lislaam muy bés bu màgg ci lislaam kon président ne mënut a ñàkk mu yebal fi délégation mu yebal fi délégation délégation bi dina gën a rëy lii. waaye woon bu dul woon ko bi ñu nekk délégation bi dana gën a moo tax mu ne ñu nu àgg siyaare la siyaare yow ak njaboot yëpp. yow ak mboolem njabootu borom daaru moxti gi ñu fekk. kii nga xam ne mooy sa jëwriñ yor kàddu borom daaru moxti muy Serigne Bassirou Mbacke Ibnu Salaam Abdul Xuduus. mu siyaare la ci bés bi. mu siyaare la ndax xam na ne bés bi bésu ñaan la. na ne bés bii kat di màggal daaru moxti bésu ñaan la. ndax li histoire wax ci bés bi. li ci li ci daje rëy na lool ci lislaam waaye nag rëy na ci yoon wi borom daaru itam mii tax ñu def bis bii ñëpp xam nañ taxawaayam ci yoonu murit moo tax président njort ne lépp lu nu fi ñaan sunu borom mën na ko dogal koo tax moo tax Mbàkke ñu ne nanu agsi ginnaaw bu la président siyaare ñaanal la yan bii nga xam ne moom nga yenn muy jotaay borom daaru moxti suñu borom defal la ci ndam amin ya rabbi yàggal la fi ginnaaw loolu président mi ngi sàkku nga ñaanal ko nga ñaanal réew mi jàmm am na fi waaye jàmm ji dolliku xiital njaboot gi ni ko borom daaru daan defee ci liggéey ak jaamu yàlla ndax xam na ni ci loolu rek nga nekk kon nag boog wax ji du gudd dafa mënu woon a bañ yónnee moom président waaye tànk yi Mbàkke jàppal ne tànk yi sàkku ñaan la ci moom président waaye tamit ci réew mii yàlla yokk fi jàmm noo ngi lay siyaare bu baax Mbàkke lottu naa nag ci jotal président nuyoo bi ni mu ko bëggee woon waaye ci ab tënk daal Mbàkke noo ngi lay siyaare di sàkku ñaan ñaanal la nga yàgg ci kanam njaboot gi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbooloo mi sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngi bi. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ministre bi. Dame Diop ministre Dame Diop. ak àndal. ak mboolem ñi mu àndal. ñu jiital ci Cheikh Abdou. ñu jiital ci sëriñ Cheikh Abdou Bali. ak préfet ak sous préfet. ak mba mboolem mbokk yi le président Modou Diagne Fada ni ko ministre bi limee woon léegi ak monsieur le maire Madiop bi tey ak Serigne jili Mbacké moom Serigne Cheikh Assou Faye ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak ministre ñëpp ba ci madame la conseillère Oumou Ba mboolem ñi nga xam ne mboolem ñi nga xam ni ministre bi indaale na seenum nuyoo ministre bi indaale na seenum nuyoo fii ginnaaw nuyoo président de la république. ñu ngi koy nuyu. ñu ngi koy nuyu. di ko delloo nuyoo sëriñ bi. di ko delloo nuyoo sëriñ bi. di ko sakku. di ko sakku. mu jot li nuyoo boobu. mu jot li nuyoo boobu. ki nga xam ne moo ko yabal. ki nga xam ne moo ko yabal. muy président. muy président de la république. li ngeen def day. sëriñ bi ne li ngeen def day. jële ko ci ndigalam. jëlee ko ci ndigalam. dafa am lu muy tekki. nee dafa am lu muy tekki. ndax kenn ku ne xam na ne. ndax kenn ku nekk xam na ni. sëriñ bi màggalewul nañu daan baaxoo màggale. sëriñ bi màggalewul nañu daan baaxoo màggale. Mm, rawatina di ci boole. rawatina di ci boole. Mm, gouvernement wala état. gouvernement wala état. ndax su boobaa. ndax su boobaa. xam nañu nañu ko daan defee. xam nañu nañu ko daan defee. mooy tàmbalee ca CLD ya. mooy tàmbalee ca CLD muy àgg ci CRD. ba ba muy àgg ci CRD. ba kenn ku ci ba kenn ku ci ne. ñu fàttali la la nga ca baaxoo def wala la la ca war ci ndigal rek la ko teg ne loolu lii mooy dox ba si ci moom mu wéyal ko rek ci ndigal ne li tax mu ni nag li ngeen def lu am solo la dafay mel ni seen dikk gi ginnaaw bi ñu santee monsieur le ministre ak ñi mu àndal nee ca cant googu la président appelé ci. nee ñu jotal ko bu baax itam cantuk sëriñ bi. ci seen dikk gi. ak teraanga ji ngeen àndaaleel. ndax itam. nit koo xam ni. dafa nekk ci loo xam ni. xam nga ni itteel na ko. waaye am na gàllankoor. nga ni naa ñëw. doonte bis bi tëddeewul nam daan tëddee it. waaye tey mooy màggalam gi njëkk mu nekk borom daarul muxti xam nga loolu taarix daf koo war a mën a nettali kon nag ku ko fekkee war nga caa mën a feeñ muy benn ñaareel ba mooy lii ngeen def fii réew mi toll ci ay jafe-jafe ci ay tàngoor ku ñu wax ni yaa jiite réew mi wala am nga ci lenn soo séenee bis bu mel nii dafa war a mel ni ak jur goo xam ni dañoo seen xur wu naat ñax mu rafet ne fa ndox mu baax ne fa ñu njëkkante ca dund ca ne kon nag xam nga ni ku yilif réew mi bis bu mel nii ñëw ak nu ñu ko mën a tërale nii ngeen ko defee day am na yaakaar lool ndax yaakaar ni ku ñëw ci barab bi di fàttali ku borom daarul moxti ak Serigne Touba seen mbégte moomee nga xam ni moom la am ginnaaw bi Serigne bi demee ba ñëw ca seen jataay boobee jàpp na ni loolu kat am xel la kon nag ginnaaw ba ñu leen ci sante ci turu sëriñ bi rafetlu defin wi ndax yëg ni sëriñ bi lii kat mooy màggalam gu njëkk te yàlla na ci yeneen topp yu baree baree bari amin nee te li waral mu mel nii suñu borom jëlee ko fi ba kenn ku ne tal ko mën a feeñal sa yéene mën a feeñal sa taxawaay loolu daal jàpp na ni mooy li nga xam ni mën nañ koo gis ci yoon wi rafetlu ko jàpp ni xel moo ko lal ngir gis fu xéewal nekk nga ni naa dem xewlu ja te lu mën a nekk la nag ndax barab bii bari na lu yëngatu ci réew mi nee te fii la jóge sëriñ Ahmadou moom sëriñ Modou Moustapha nee dafa xamul ndax sëriñ bi fàttaliku na koom déet. nee mas nañ faa dem ci màggaluk daarul xuddoos. nee na booba day mbooloo ma xaw naa sakkan. nee kilifay daaru moxti yi ca manki bariwul ñuy wër kër yi daarul xuddoos yëpp. bañ fa yeggee. ci biir mbégte ma. àgg na ci wax ni. Cheikh Mouhamadul Moustapha. daana leen wax ni. na ngeen fonk daarul moxti ndax bari na lu yëngatu te foofee lay jóge di daarul moxti nee na noonu yi rek la ko waxee nag bari na lu yëngatu te foofii lay jóge kon bis bii yaakaaru na lool yaakaar ji nag yàlla bu mu tas xanaa yóbbante la ci président rek sëriñ bi ni nga ko xamee tey jii di màggalam gu njëkk mu nekk ci ñetti weeram yàlla dogal na yàlla dogal na toogagut ak ñi mu war a toogal ci bokk yi ak njabootam gi won leen yoon wi mu war a jaar ak ni mu nar a liggéeyee li ñu tuddee feuille de route te defagu ko waaye bis bu ko defee ñëpp danañu xam naka la bëgg a liggéeyee naka lay ànd ak njaboot gi su boobaa nag lu cey seen wàll ngeen taxawee ko ba mu mat ndax nag fekk na fi loo xam ni jiitu na ci sëriñ Cheikh Khady jiitu na ci sëriñ Cheikh Khady jaar ci sëriñ Abbas ay mbir yoo xam ni ak li mu ciy dollil boppam dina ci am yoo xam ni ne munu jël munu leen caa ñàkk doon dara waaye loolu lépp nag day fekk ne dajale na njaboot gi wax leen li mu bëgg ak ni mu ko bëggee ak ni ñu koy defee su boobaa. kenn ku ci ne jël ca la cay sa wàll nee na kon loolu itam nañ ko xamee noonu jotal ko kilifa ga xamal koy nag ni ko sëriñ bi ndono lim fi fekk dafa fas yéene lum ci fekkoon mu rafet da koy gën a rafetal rek képp koo xam ne jàppoon nañu la nee da lay gën a jàpp rek waaye lépp nag tegu ci dëgg te tegu ci rafetal andin woo xam ni kenn du jëppee. loolu nag loolu nag. bokk na ci la koy maye. na ci la koy maye. nee ko moom président. nee ko moom président. bu mu déglu bu mu déglu. benn benn kaddu. benn benn kaddu. boo xam ne boo xam ne. ci sëriñ bi la jëm ci sëriñ bi la jëm. ko wóor ni. te du ko wóor ni. ci moom la juge ndax bari na loo xam bari na loo xam ni. la koy sikkal la koy sikkal. Eh, nee ci diggante bi lay jugee. nee na loolu xamees na ko ci kër sëriñ bi. nee li mu bëgg a wax mooy kilifa gune xam nga ne. bari na loo xam ni bari na loo xam ni. ña nga la koy waxal ca biti. nee te yëgoo moo xam kilifa diine la. moo xam kilifa àdduna la. moo tax. nee bu kumpa rek am ci diggante bi. ñi war a yëgoo daal. nañuy def li Serigne Touba waxoon. yàlla yëg. àdduna yëgoo su loolu amee rek lii rafet lépp day gën di rafet te nag lu mel ni euh, ne lu mel ni Serigne Cheikh Abdou mii ne waxoon nag ko keroog ca Daaru Manaan ni ko koo xam ni euh, fa ñuy séddalee euh, ne da nga faa toogal ay bokk te nag am ca cër bu mat sëkk nee na loolu kat day dalal xel. nee na moom mii kat da koo mos a wax ci ay jamono bu yàgg. ndax moom dafa yaakaar ni. ragal ak jaamu yàlla ragal ak jaamu yàlla sunu borom rek lañ ko war a def. nee mu wax ko ci ay jamono. rahmatullahi alayhi sëriñ Modou Makhtar mii tey. ba ñu ko joxee loolu lii ñu ko joxoon. nee moom kat mu wane ni. daa mel ni la ñuy séddale. doyut nga am ku la fa toogal. di la jëlaaleel sab cër. di la jëlaaleel sab cër. waaye am na fa rajo boo xam ni. moo gën a mag ci rajo yi. moo gën mag ci rajo yi. waaye loolu da koo dagg. ayut. nee na ayut ndax li ñuy séddale. yow nga war caa amub cër. boo fa amee ndaw kay sa xel war naa dal. nee na noonu yi rek la ko waxee woon. nee na loolu yi lay dellu waxaat sa kanam ci dellu ginnaaw mukk ndax itam sëriñ bi lii mu am bu ñu xoolee màggal gii daaw lii sax amu woon màggal ya ko jiitu woon bisub tey bii boo fi mosoon a ñëw ci waxtu wi doo am foo teg sa tànk ne kon xam nañu ni loolu am na lu ko waral loolu li ko waral nag mooy li am solo mooy sëriñ bi daal diggam ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha lépp leer na doy loonte gaa ngi fi jàppante gaa ngi fi dundal liñ fi fekkoon a ngi fi nee na loolu na ko président xam bu baax nee bu la kenn ni ko kenn ni Serigne Bassirou Anta Niang Serigne Mountakha lu dul li waroon a jaar diggante borom daarul moxti ak Serigne Touba moom rek moo jaar seen diggante ku ko wax leneen nee bu mu gëm loola loolu yi rek mooy li am nee lu mat a wax la nag ndax sëricé yi day bari lool sëricé yi day bari lool nee kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax ministre nee nag negam mooy sunu kilifa ci wet gi yàlla dugal ci àdduna ñii di sunu kilifay diine di sunu yaakaari tey ak ëllëg nee dafa war a leer kenn ku nekk xam yoon wi ngay jaar yoon wi ni jaar daal ne ko nee mooy sëriñ Bassirou Anta Diagne mii mooy sunu borom daadul muxti nee bu nee weex na ñu ni weex na bu nee ñuul na ñu ni ñuul na su awee penku nu aw penk bu jëmee soow it ñu jëm soowu nee na te noo nii rek la ko defee sëriñ Serigne Mountakha kon nag li gën a jàppandi ne ku téye Serigne Bassirou rek. ne téye nga daarul muxti gépp ku téye Cheikh Mamadul Muntaxa téye nga yoonu murid wépp ne loolu nag na nekk loo xam ni lu dëggu lay doon ñu yeew ko fu dëgër ñun daal ku am sëriñ Basiru mii am nga nu ne ku ko ñàkkit ñàkk nganu ndax sunu lépp a ngi ci moom ndax borom daarul muxti dafa wetti aw ñaqam ñaq nag du réer borom loolu la defal Serigne Touba loolu la defal Serigne Touba ba lépp man fee ne yàlla na ko yàlla sàmm yàlla sunu borom barkel ko yàlla sunu borom may nu nu am ndam nu am ngërëmam muy ngërëmul borom daaru muxti ak sa ngërëm ñun ñii nga xam ni say ndaw lañu di jëflanteeg ñoom nee na ñun itam Mbàkke noo lay seedeel ni sant nañu ndax tëju wunnu te defoo nannu ne waxuma laak nag ñii nga xam ne dañ cee bokk nee na moo xam gouverneur la moo xam préfet bi la moo xam sous la ba ci mboolem ñi ci dëkk bi loolu daal nee na Mbàkke faw mu seedeel la ko Jóob mii ba ñuy xamante nee na booba ca Dakar dem dikk la woon nee te bu set muy gën di rafet bu fi kumpa am rek bu kumpa amul rek lépp dana baax jërë ngeen jëf